yow koo yab dam lay laaj yow Fatou Diagne yow koo yab mbaadu boo dugga see Europe nga dóor sa data bi Fatou Diagne nga dóor sa data bi bi fees la nga ne aw yow yaa damay ñëw nag laal Danso because Danso ne bàyyi na nag toog na mu ngi jaamu yàlla toog toogam amuta kenn affaire dama bañ bi internet bi internet bii dama toog suma side nekk suma koona du ma lijjanti kenn ñëpp xam nañ ko bu at bi dooree ba tey waaye nag at bi tamit soo tëj koy tëj man dafa dafa mel ni yàlla dafa ne at bu ne maa koy tëj man loolu laa seetlu dafa mel ni at bu ne man maa koy tëj te at bi dem naa fexe naa fexe naa pour bàyyi ko rek waaye at bi foog ma touriste ko rek ma ma ma tëj ko Faa Jaañ ni yow su ma waree woor sa caapa bi sa sa caapa bi sa lëf li gën a bi mënut a wol yow sa lëf ne sa càppa sa ci wolof bu wow boobu nga xamante ne benn góor nangu la kenn la namu yow Fatou kenn la kenn la yow gis nga man ah pour génn sa wees sama time dama la ne maa yóbbu at bi jee Fatou Diagne weer bi dee soo taayee duma taay yow nga ne man Fatou Diagne damaa jotee kan damaa bëgg a juboo fausse la di fii laa taxawoon saaga fausse la di Gambia damaa bëgg a duggan juboo ñoom moo tax may faral fausse la yow ana man suma vidéo ak ñoom fausse la dafa bokkut sax ñëpp gis neen àdduna bi ñëpp ñu ngi wax yëpp xuloo xeex yu am si ma génn wax suma wax ne ne leen respectante yow Fatou nga doo jël sa data bu wow boobu ni concrète ne yow man yow lay gaaru waaye da sa bopp si suma wax because man dama bëgg a jub facilité man dam la nduroo ku xool ma bang fat jaay look me look me man dam la nduroo kuy mal ay taati jeek hey Fatou Diagne man wóoruma jeeg wóoruma benn jeeg si àdduna Fatou man jeeg yaa ma wóor man dama toog suma kër nekk Europe di liggéey di teral suma yaay teral suma ay njaboot teluma benn jeeg man jeeg yaa ma wóor man Fatou Diagne yow lu la naxari man teguma la ko parce que yow jël nga sa caapa bu wow boobu noonu sa caapa bi lay saaga de duma saaga saagatee sa yaay duma saaga sa baay ñëwaguma fa ne geer soo koy geer dangay door starting bi yow lay geeral soo jàllee ma jàlla Fatou Diagne yow dansoo man mii nga ne mënoo maa xas noonu doo da tontu wanteeg man doo tontu wanteeg man maa la gën juddu faa Diagne yow maala gën juddu est-ce que xam noonu yow maa la dina gën maa gën juddu Fatou Diagne man suma baay bàyyi nekkul kat di dem di tamambaalu si dëkk yi di wër ba Gambia TV ràññewuñ ko man suma baay dafa loolu man suma baay dafa nekk masta jàngal ay doomi Gambian ñu am éducation ñu jànga man rek maa bëggut jàng ni waaw dëgg la doom bu nga am ko jël wi wiyam man this is my way this is my way déggoo ma de waaye man suma baay dafa liggéeyal gàmbee jàngal doomi gàmbee ni ku xam suma baay man man suma baay doxu si mbedd bi di yënki-yënki di woy danga bëgg ma woyal la Fat Diagne ma woyal la yow ma woyal la tey laa call GRTS billaay wallaay tey dama call bi ci suba maa ngi woo GRTS ah pour ñu rek ñu jox ma ne mun naa am nu am sabaay baay wëyam saagu ko de dama wax rek ne lu ma lu ma la si même suuf ñun ñu ne ma ne ah wëye kii de moom kin restaurant woy naa ko ut naa ko si youtube bi youtube bi gisul kin restaurant woo naa google google gisul kin restaurant woo naa any kind of intestine of of the internet for internet to give me the song of kin restaurant nobody see it Faat ma dem GRTS ma ne mii bi GRTS télé bu yàgg la waxuma télé yu ees ñu ñu mais bi dinañ ma amal wéy kin laas ñu ñu ne ma ne xamuñ ko du kooku moo doon wéy Gambia Gambia ñu réew Gambia xaw ma di ko dee paax ma ne ko waaw ah, Gambia la doon wéy ne ko moo tax yow dama demat fen ne ko ne wéykat bu jën a yées si biim réew musuma koo gis yow Fatou Diagne yow si sa deret la ne du nga ne Europe nga ñëw ah damaa Europe du ma fi kaayante ken du ma fi so soo xamee ne dangaa ñëw Europe bëgguloo kaayante wala ngaa keppa sa data bi nga bañ a kaayanteeg man nga toppatoo sa soxla su ma defee suma vidéo nga tëj sa gat bi man duma Adama Barrow man duma Adama baro man duma fausse lady man dan soo laa man soo ma ŋaññee ma ŋaññi la ñooñu ngay ŋaññi di leen saaga pour nga am asile xam nga yow defuloo woote naa ñu ne ne ñu ne buñ la jàppee police bu nu ubbee sa baat bi ay garab pressé moo fa nekk xam nga dafuloo technique boo use nag technique boo use indil gouvernement gambien problème pour gouvernement gambien tëj la nga mën a ñëw Europe dugal asile du technique boobu nga use soo ma oytu nag technique boobu ma may toj ndeyam may yaaxa ndeyam yoo xam nga ma yow yow dama xamut sax du nga ne yow boo ñëwee wan moom ñu jox la kayit ah dañ la jox kayit noonu yow loolu nga foog kayit laacal ku la abc ne yow kayit leen la jox bi nga xam dëkk bi nga nekk dëkk bi nga xamante ne dañoo joxe kayit noonu am na ñoo xamante ñu fi 20 years ten years amun kayit yow foo toj yow loo fi def da nga war a ñëw yërëm ñu war laa jox kayit fajjan tilim nga fajjan xesow nga fajjan jekkoo jigigéen jekkoo si góor jekkoo si lesbienne bi nga doon yoo xanaa xam gambien xamu ne yow undercover lesbienne nga Faat Diagne Gambien yi nga ne dam lay man dama la sosal Faat Diagne na Gambien yi xamul na yow undercover lesbienne nga wax ma yow foo solee sa dagg sa anaango génn mel ni jigéen yow Faat ku la xam yaa ngay sol solu tomboy ay joggin ngay sol ay joggin ngay sol balaa may dee damaa am ko xulaaseeb génnee ko undercover lesbienne yi bari neen fi ay undercover gay yi dañ fi bari xanaa yow Gambien yi xamul na yow onda undercover lesbienne nga yow Fath yow man ngay laal tey laa lay wane naka la caga di ko riijoo Fath Diagne yow lëfoo data man maa la lof koy dina lof data man loo làmba si man fekk ko si man loo ko si man déggoo ma de te foo ma wuyu si ma fekk si la yow Fath Diagne yow da nga yebaate balaa may dee ok man daw ma Dubaay dama juum ne Dubaay yow bés boo demoon Dubaay ñu tëj la jox la animal si seen animal si ñu fiit la yow Fatou Diagne yow soo demoon Dubaay loo fa def sa waa yaa ma woo yow boo ñëwoon Gambie di saraxtu na da nga bëgg a wax ak fausse di xanaa da ko faate Fatou Diagne boo jógee Kuwait ñu dippoot la nga ñëw nga xalaku wow comme feebar yow jamono boobu da ko faate yow a xas fausse di. Muno has forced Lady sax muno has Adama Barrow ni ñooñu dañ la yo ye jam. yow ye jaam yow I jaam balaa may dee man First Lady ni nga bata wala ni yow to the hell who are who the hell do you think you are who the hell fa Jagne do you think you are yow fa Jagne who the hell damay laajte yow sa caapa bi ban jar la jar bi yow nga wane yow da nga sa caapa ba riis ba nga war a toog nga ne man ngay laal yow nga fekk gaynde bu toog toogam lem geenam man ñu ma fi Gambia ku fi jóg cootanaa la man ñu fee gaynde gaynde yépp si biir Gambia laa la wax ku fi ñëw dem la coota man kanam a ñeme yow yaa toog ñëw yërëm nga ne da nga lee ngéréngaa la aj sa tànka aj sa kanam ak sa gémmiñ bu gudda sa gémmiñ bu xesaw sa caapa bu xesaw sa muuti bu xesaw sa bëñ bu wuudee sa ñuulaay bu dëtem nga ne man ngay laal yow doo use filtre yow ma ne man suma muuti bi su ko génnee woon laa la wax Fatou Jagne suma muuti bi dis may aas moo dina jekka yow sa kanam bi yow boo jógee Gambia nga ñëw di xalaku nga ñi di wooma pour ñu jàppale nga wooma di wax di jooy di wax ne waa Kuwait dañ ma def li dañ ma réer nekkati yëpp duul la yow da fa sàcca ñu jàppala sàcca leen la jàppee Kuwait da nga ñu jàppala faa Diagne bàyyi duul Fatou Diagne duul ngaa duul ngaa duure ba ñu la ébaissé gàmm bi yépp ñëpp sànni la balaa may dee nga ne Fatou Diagne yow sa santuloo Diagne sa tul laa la wala wooyee sa tuli Tooma sa tulandool moo sant Diagne yoo sa tur sa sa sant sa bëggoo ko yow kenn xamee wu la sa sant yow yaa da nga génn sa teggi ndawal yow sa xeet bi nga jógee sa da fa teggi ndawal bi ka xam nga ne yow tekkiwul tekkiwuloo tekkaaniwuloo bokkoo si xeet yu baax yi bokkuloo si doomi tekki man dan soo man tekki. su ma bàyyi dafa tekki teral doomam su ma ndey tekki teral doomam yar doomam ba fu mu ko waree yar man xiifu ma man dama judd tëdd si toonin beet dama judd di toog si kama kama toilette di toog si kama di puub di ko floss puub bi di dem déggoo ma de Fadia yow soo ma laalee da ngay daanu yoo xam nga ne man maa a dina katagaynde maa la dina réew te Europe bi nga nekk dama dafay fay fekk toj sa muuti bi sa bëgguma saaga sa waajur yi sa tey boobu tam bésam dina ñëw. te dama ne yoo lay saaga sa data bu wow boobu undercover lesbienne bu bon bi nga doon yow man ngay defante nga ne man may duurkat man dama ne nduroo ni du ku kuy duur wala kuy koppooru jeeg yow First Lady dama ànd ak moom waaw dama ànd ak moom man First Lady waruma ko de xaritowuma moom woowuma woowuma ko lu am suñu diggante am na jeex na jeex na foofu la dem ma dem ci laa dama ji nga man dansu képp ku ma fenal wala ku wax si man lu bon su ma la bàyyee bàyyi naa la waaw ni man damaa tedda est-ce que xam nga ko Fatou Diagne man damaa tedda dinaa jël kool si may leen ma tuuti dinaa jël kool si dinaa jël kool si lu ma bëgg a wax dama koy wax pare ma jël kool si Fatou Diagne man damaa liggéey yow mi yeggee nga ne yërëm nga ñëw yow kuwéet nga ko njëkkee te tekkiwuloo fa kuwéet nga ko njëkkee Fatou Diagne te tekkiwuloo fa yaa may dégg yow ku tekkiwut Kuwait sa morom yëpp tekkee nañ Kuwait ñëpp ñi ngay dawal ay moto ñi samp seen këri ndey samp seen këri baay yow boo demee Kuwait fen ak duul tubaab bi boo egsee nga ne den la jaay yow ku lay jaay kuy jël gom bu mel ni yow jaay la yow na yow ku la jaay naan naan rey den koy rey kooku yow ku lay jaay yow est-ce que gis nga sa bopp Fatou Jagne xaal ma kool maam Ndiaye Savon ana maam Ndiaye Savon maam Ndiaye Savon gaab jaabee na ma si si gaam bi wala si saabu ji jàppale eh woyal leen ma maam Ndiaye Savon mu dugg si ma wax ne mu jàppale ma si gaa bi ne ñu gaa sa caapa bi dama war a ñëkk a gaa sa bi bomba koo xiis su ma paree ma jëlati gaa ngi maam Ndiaye Savon bi gaa sa poxotaan ñu weex ma gaa sa luppa sa kaapa kaapa yi ñu weex ma doog a gaa bëñ bi sa gémmiñ bu gudda bi gaa ko na nga mun a bàyyi duul Fat Diagne nga Gambia Fadia ñëw nga duulal nga nit yi ñëpp xam ne yow loo duul fenn njiit yu ma woowoon ñëpp bëgguma woo seen tur ah ñu ma woo ñëpp pour ñu jàppale jàppale la Fatou Diagne ñëpp ñu ne ma kii dafay duul bu ñu ñu investigué xam ne yëpp duul kat nga ñooñu tëggee la côté nga mer taxaw fi saaka buur Banjul ñooñu tëggee la côté te yow buur Banjul daf la ilif jàppale la defal la loolu ak loolu yow Fatou yow doo góor yow bu nga xamee boo duggatee Gambie yow kër kër coppintu kër soo nekkee fi juróomi at ñu daaxala nga nekk fi ñaari fan ñu daaxala nga nekk fi ñetti fan daaxala sa sa tuuma boo xam ne sa turandoor bi faa jaañ bu la yar lan la daf la daaxa ni sa jikko bu bon sa mun a duul sa xay sa waay sa coota boobu noonu jig nga sa coota boobu noonu lay xëccax ah xatapeel ko ah mu dem ba tulki jang soo duggee suma dose soo duggee soo wootee suma tul Fatou Diagne dinaa la wax cook xam nga tey bëgguma jaar sa feneen a feneen a feneen tey sa caapa bi lay data sa caapa bi lay xaar Fatou Diagne suma woo suma tul soo ko wootee dinaa ñëw wax sa cosaani baay dinaa ñëw wax la sa cosaani ndey dinaa ñëw wax la sa cosaani maam nga xam sa yow foo jógee te Europe bi yi booy diijuwaaleel su paree dinaa kool seen dëkka kool seen asili dëkka bi kool leen wax leen yow yaay kan te dinaa fay suma tëkka ñëw ba si seen dëkka yow Fadia yow mën ngay géeral yow est-ce que yow laajte nga koy géeral di dox ak suma nationalité dox ak suma kay fu ne mun na la fay xeex toj sa cottu astafurlaa toj sa caapa bi bëgguma jaar sa si ndey ak baay fu dama la ne génnal nga saagati ma génnal rek nga saagati ma duma la tontu de sa dëkk laa lay fekk dama ne boobu noonu su eboolu ne ma boobu dama bon dama iñaan I don't care waaye lu ma war a def dama koy def man Europe kenn di fi ñëw di ma fi bu xalaku bu mel ni yow di fi ñëw di ma fi saaga duma ko nangu duma ko nangu yow barki démb njaay nga fi ñëw dem di saaga gouvernement Gambie di saaga président Adama Barrow pour nga ñëw pour ñu jox la kayit loolu ngay jiim Fadiane joo caga su nekkee saaga Adama Barrow moo war a tax nga am kayit Fatou Diagne di nga fa nopp kayit doo ko fa am maa la ko wax doo ko fa am balaa may dee dama am kayit yow est xam nga Europe ma wax nga ne man ngay laaj fa nit di ma saaga di ma ne góor jigéen bi dan soo géey maa tey xanaa seen baay ñu koy wax seen baay laa ndukkanteel nga seen baay lay kata seen buni loolu laa lay seen bàyyi lay kata seen bu ni xanaa benn war a xam ne man goo jigéen la dama ne fii kenn mënu fa xas kenn man gambien bu jóg boole maa saaga danaa la saaga ba du ci sa muuti bi Fatou dama ne soo oyatee suma tur ma bi ko woon a sa muuti di ko rigin ko rigin te ñu may likkiñee saab man duma Adama Barrow de kooku président la du tontu man da dama bekk suma buuri kër toog suma kër ku laal ma coota daf may neex ma rombale daf may neex na ma coota la comme ne bàyyi naa xulu soo leen ma oytul at bi maa koy tëjati nga ne man dam la man duma la seetaan am very sorry nak. nga ne man dam la bugga man bañu doomi aadama man caga dam la nay duma yi dinaa la jàppale man barki démboo fete mu ma ko mu régler ma régler mu ne ko xiyee sa démocratie continue jine régleel mu régler waaye yow nga ñëw nga ne dama hee yow fàjjaaj nag yow nag dangaa reepa yow xanaa sa càpp bi nga laal rek mu mu xala fees yo ak wala lan la yo la lu la laal dina la pes na lan yow est ce que xam nga koo tontu yow est ce que xam nga koo tontu na koy tontu ne yow yaa sañ ku fi génn wax danga koy tontu because yow ay Bill Gates su génnee su waxee dara danga koy tontu kooku Bill Gates la man duma Bill Gates man am a hustler like you I am a hustler duma yow sax doo hustler yow doo hustler yow I am father beggar mother beggar son born to be beggar yow loolu nga man su ma ndey juruñu saañuñu suma laamin bu dotom bii moo tax nag nit yi di ma seetaan ñu tiif noonu ma buggee laamin bu dotom bii laamin bii This song, are you seeing Fajan? This is the tongue Gambian people like. man my water Gambia, Gambie ni tëral ma damay water Gambia, Gambie ni escorté ma damay waata Gambie président xam gan water sina. na su ma duggee airport ñu ñu ñu tere ma VIP ma toog fu Adama Barrow di toog konte man Gambie ni ngàcce ngaalam mënuma leen has. Yo yow Adama Barrow yaa angala nga ne daw nga be dee daw nga ba sa taat bi teepeeku daw nga ba sa yaxi tànk yi teepeeku daw ba sa sa sa jee bi teepeeku yuuxu nga ba dee amoo si dara du la faale because xam ne ne yow doo tekkiwuloo dara yow Fatou Jagne you are nothing you are everybody know you are dulkat everybody know you a fake everybody know you don't even have discipline you don't even have respect balaa may dee nga jël sa sagar boobu noonu muuroo ko comme ñëw bu bugg dee. balaa may jël nga dee sa sagar boobu muuloo ko comme sànn fa bicc génne di wax ne yàlla bi yàlla ba naa ne la ragal yàlla yow soo ragaloon yàlla doo sol ay tubéy di sol ay jógin sa muuti bi génn sa càpp bu dungulu bi maa ko wax nga ne sa muuti bi dungulu ma waxuma sa muuti bi de dama ne sa càpp bu juutu bi sa muuti bi waxuma ko de sa càpp bu juutu bi laa wax sa càpp bi nga xamante di dem sa moromi lesbienne di ko mocca ba sa càpp bi juutu moom lay wax faa Jagne yow xanaa xamuloo ne yow kaw laal génnal tontu ma dinaa ko diggaale yow te suma paree Fatou Diagne suma paree yow sa di nga fa dama def yow dam la yaagaa xiifal xamuloo ko nga ne man dam la bugga man la laaj si yow di la bugga man Bob Keita xeexam problème Bob Keita bi moo tax ma ma ama yow affaire bi nga seet ma message naa génne sa yi nga xool Fatou Diagne man ana yow ana man ana man who the angale bi sax moom la laaka sax may leen ma sax ana man ana yow dam lay laajte ana man ana yow ba man di la bugga aw yow Fatou Diagne lu ma lay buggee ah Fatou Diagne de mi ngi nii moo ma seen message gis ngeen si kaw mi ne ma hello brother hello brother anglais bi sa baaxul ni man ni comme man la am hello blogger and how are you doing can you please send me your number yaa ma seen message ji man dam la lijjanti Fadia yaa ma seen message nga teg si send ma love send ma thank you ma ne ok big sister I will ma la how are you doing tegal la si ne ah, this is my number nga send ma love nga ne ma thank you nga bindati fi is your sister Fatou di duula te di bëgg a duula ak rambaaj yow wasaam nomba faalewu ma la tontootuma la foofu laa yema yow ma wax ak yow ma dig la xaar nga ma ne la dina la def dina la jox dara ma faate sa wax bi sa sa voice bi wax nga ko nga ne waaw fii nga ma diggoon defuloo ko nit ñi soo ko waxee dara danga koy lifin man digga la man ku ma dig dam lay may de waaye man dama am too much of things to do dama faate sa la lu tax woowuloo ma su nekkee loolu la naxari lu tax woowuloo ma nga ne ma dan xaalis ma fàttali ko may la walla ma wari la wala ma western yoon la yéen lu ta gambien yi ngeen mel nii da ngeen di toppandi su leen nit ki faalewut ngeen mer ngeen di wuññi wuñaanal bëgg a nit ki lu ta ngeen mel nii yéen gambien yi bari laay wax fi ngeen dee toppa nit lijjanti nit ki nombaam nit ki faalewu leen du man ak yow it's not me and yow faa jaañ faalewu ma la lijjantiwu ma la ma tànk la si bopp Keita noo ko jàppalee xeex bi ñëpp ko fi xeex si laa am fu laa pare si yow léegi nag tey nga sañ-sañ nga ne man dama ma bugga man fu ma la buggee ana man ana yow ba may bugganteeg yow ngaana nguuni ngaana bu mel ni yow nguuni ngaana bu mel ni yow faa Jagne ana man lu ma lay buggee ana moo la bugga si yow ku mel ni ku yow ku xalaku ku mel ni ku yow lu may bëggee si yow ku ñaaw ku mel ni ku yow nga mel ni doomi golo ku mel ni ku lay ku bëgg a man du ma bëgg a lu yow man su ma dab is an me my my body illiterate angry angry people money my body ma wax la ko man suma yaram bëggut dafa siixlu ku ñaaw Fat Jan, man, do man, yo, I cannot even, even I'm eating, if I scroll, scroll, I see, I say, oh, I pass, because then I vomit all what I eat. Then I yëpp lu ma lekk di yiw dam la so honest I'm very sorry to say this Fat Jan De la you are not me please hold on your vagina hold on your vagina catch it keep it and go and fight with Adam Abado and leave me alone jàppal sa caapa boobu noonu nga dem xeex ak Adama Baro nga ba ma man soo duggee man man dama Adama Baro de man dam lay coota fekk la dëkk bi nga nekk ma coota la wala la du man dama am suma kayit dam na fay fekk songo la xeex xeex ak yow ñu dippoot la delloo la ba Gambie booy xaste yow foog nga ne Europe bi di nga fi am kay yow tubaab bi duñ la bëgg yow dañ lay fii ak seen xaj yi comme lu ma la waxoon si suba ma ne la balaa ngay dee nga ne arabe yi dana bon arabe yi waaye ñëwati nga ne dañ la jaay yow fàjjaay nga jëwati nga ne waaw man den ma de eh, eh, ten benn arabe tëddoo ma ban arabe moo lay tëddoo yow arabe yi duñ la tëddoo yow arabe yi dañ lay jox seen xaj yi ñu tëddoo la te seen xaj yi sax dañooy takk seen but yi ñu tëddoo la ni seen xaj yi suñ la gisee duñ la tëddoo dañooy daw dañ lay maata. yow Fatou Diagne yow xamoon nga ne soo ma laalee dinaa génn yow Fatou Diagne xamoon nga ne soo ma laalee dinaa génn nga ne man fausse la dam koy clean koy naa man soxlu maa juboo fausse la di fausse la di suma sista la suma sista lay doon ba ilaa yow mi di waaye juboo moom déedéet te Adama Barrow booy wax man adama baro bu mu nekkee si a ah, si pateem bi xaw ma jiwoo jiwoo xaw ma faloo faloo moo kaanaa pateem bi sax turam sa bu mu si pateem bi man adama baro soppatuma ko adama baro bu ma ko support time UDP la te UDP moo tax ma support adama baro nay leer balaa ngeen di jël seen caapa di duul nay leer man adama baro UDP laa ko campagnal UDP laa ko xamee UDP laa ko supporté te ba mu génnee UDP laa paree Adama Barrow UDP laa ko supportal suma mag mu may ko duma ko ñàkk yow Adama yow ah, ah, Fat Diagne dem ba pexeel oo oh, oh. aw xale góor yi ne da ngeen xee góor jigéen su tam soo ñëwee yëpp dégg naa ko fi ma bàyyi la si biir ma wan leen ne yow sa góor yooyu commencé jàpp ma dog sa sulik sa sula bi saaf jox ko seen ndeyee seen waaw sama doom bi ku la tooñ nii ku la tooñ nee na tuuti mooy bukki gaynde bi faat jaan mooy ku dina ñaaw gambi dina yées gambi ya xanaa waa léegi xam nga lu ma bëgg a laajte Fatou Diagne moom moom foog na ci Europe bi la nekk dan soo léegi ci Europe bi la nekk kii damay defanteeg moom ah Fadiane na na bàyyi tooñ la la la def nii. dama def vidéo démba. bu ma defee vidéo ma ne may wax ne comme xale yi ñu bàyyi xuloo xuloo baaxut xam nga ni leen respecté. boobu ba tey sa yaa ngi def laaj di jubóole xale yi. loolu lépp firnde nañ ko. man ñaata nit laa fi woo Fadiane de. loolu nañ ko. man ñaata nit laa fi woo fausse lady ah, ak yow yow nga am sa doole bopp la ana xoola uyu ma kaay ma wax la dama bëgg nga déglu ma mhm. nii la ñuy def dañ la bëgg a indil problème bëgg la indil ay wax yu sew mhm. yaa ngi am sa nga toog sa kër di toppatoo soxla gaare sa ñaari moto dëkk sa villa dama bëgg nga déglu ma bu baax gis nga fàjjaan mi day doog a ñëw Europe tekkiw dara ñii buñ la tax nga yàq sa caractère enjool sa bopp jëlal sa ndox naan ba su toppatoo sa soxla nit ñi doomu xaraam lañ léegi dañ lay fekk nga toog sa toogaay bopp yaa ngi dégg nekk sa jàmm ñu bëgg la indil fitna bul nangu dañ la bëgg a tojal yaa ngi sa jàmm barki démb li nga def ku ne bëggoon naa mel ni yow yaram yëpp a daw sa ndey génn àdduna sa baay génn na ñuy takk sa rakk nga taxaw comme ndey ak baay gis nga nit su defee la ak da day dem dem faat jaañ mi jaru ta waxal amul porte amul place nit sooy xeexal da ngay xeexal am famille compa man ay ñoom fàjjaan yi duma leen tontu am na ñoo xam ne jaruñoo tontu yow da am juddu bu baax barki dem ba sa ndey deewee maa la fekk biir kaama sa mbokk yi gërëm la gis nga nit dangay am nawle li xale ba naan nawle dafa foor nawle dafa foor waaw. commune waaw li li ñuy wax ne nawle dafa foor nawle dafa foor bul faale fàjjaan demal nga toppatoo sa soxla demal nga toppatoo sa soxla. bul faale fàjjaan bul ko lijjanti. commune commune. ma bàyyi la yow asaka yi thank you Amzo. waaw defal loolu daal. leen dégg waaw merci comme lu ko am Zo wax rek ñu ne ku la xam ku la fekk si sa kër kooku la xam man Fadiane bu ma joon jóg di xosul yow Fadiane jóguwoo bu ma doon lijjanti nga ne man maa la mag Fadiane man su ma la magee eh, boobu am bàyyi la ma boobu foog ma setal ko. Fadiaye mi ma maa ko ma ma waa yaa ma mag dëgg dëgg yaa ma mag yow sa sikkin bu weex bi bejaaw bi eh Fadiaye xool ma de man du ma mag de yow su ma la magee dee yow sa tontooli tànka yu wow yow sa tontooli jébu wow yow sa gémmiñ bu nga paaral yow sa caapa bu wow yow Fadiaye su ma la magee dee di Fadiaye man tati tri laay am tati tri trente cinq trente trente Fadiaye tati tri olof yi ne ko trente تران سبع solo 20 33 33 la 10 20 30 3 lay am Oktober B 28 two weeks ago buy ñëw fajjang yow sa tontooni tànka yow fajjang ngay màggati jamono nga ne man maa la xam nga lu weexal sama sikkin bi ñu teere ñi mën a ñefe teere tëral baay teere tëral ndey ak famille moo tax sama sikkin bi weex de bu ndaw ida di oo oh di so soo doolee li tas Fadiaye man tojaguma sa si neen man tojaguma sa si nen soo gisee ma mun a ekkati suma loxo ma mun a wax si internet bii Fadiaye man muy góor ak muy jigéen ak kenn du ne mës naa gis dansoo nekket nes wala dansoo bere kilo wala koy dansoo yow nga ne da nga riis yow Fadiaye maa la dina riis man mu toog ñaata at kenn mësumaa fóonante toog jàppa jaamu yow Fadiaye ma la dina jege yàlla hanga nga yéen da ngeen fa doon nukkante mooy yóbbu nit xam nga luy nit mooy liggéey Fatou Diagne man ak yow bokkun man so hello ah yow suma bagage yi ñëw neen waaye ay waay lii hello yeah I'm here I'm here sorry <laughs> ah yeah ah, okay thank you ah how much I have to give you I think I have to send you now 400 euros yeah, I have to give you 400 euros. I'm come, I'm come. One minute, one minute. Yeah. Oh, I can send it to. Okay, you have the you have the card here right now. Okay, one minute. I, I give it. Alright. Okay, thank you. I hope the things are nice. Thank you. may leen ma suma bagage si baat bi yaa ñëw lu ma nar a sanse si anniversaire baa ñëw lii tay tay waay lu ma nar sanse si anniversaire yaa ñëw suma baat ba lu ma nar a sanse ñëw Fadiane du ma sama rom du ma sama sa ngénte maako ko baas texte raxas kaas paaka bi maa ko da ay eh, Fadiane du ma sama rom soo bëggee morom danga koy uti ji man duma Adama Barrow First Lady Gambia suma sister la loolu ngeen bañ a dégg suma sister lay doon bi ilaa yow mi diin man duma koppalu suma maas te kooku noonu man dama ànd ak si njëkk ak teraanga mu ànd man si njëkk ak teraanga déggoo de lu am nag am na suñ mu def ma def mu jeex takk waaw foofu laa yema moom te mënu lay ma leelal li man Adama Barrow bokkuma pati lay ma leelal lii man Adama boo commencé pati lay ma leelal lii man Adama Barrow boo commencé pati aaw man Adama Barrow si UDP laa ko xeexalee bu UDP gene, mu génne UDP dem ma pare Adama Barrow yàlla def sama joteeg ah, jabaram mu jeex mu jeex waaw soo jaama boobu foofu la amee mu dem ma dem ma may xale do ma may xale Europe man may xale uro man jéeg bu ma sekkal teraanga tamit jaamale nay sekk rek man wayaanu ma man duma yow yow ñaata kër nga dem ñaata nit la ah, ah, ñaata nit la ilif ah, këram di wër di tamambaalu waaw woo leen ma jël kool yi damay dem sa dem lekk suma palaat suma suppakat Fatou Diagne maa ngi toog di ko xaar mu génnati si boobaa ma wax ko lu dina bon lu ma ko jàpp lu ma ko addencal sa moo bari waaye damay teel di temp temp temp temp ku bëgg a yekk Fatou Fatou Fatou dugale ngeen njëkk ko lu mel ne cokka maa mi jox maa la jox raayit bi. Danso. naam. Danso rek la def Danso du may ruube waaye Fadja dafa yabaati. Mhm. Fadja ku réew la amul benn discipline dafa yarade ko. Mhm. Fadja dafa ay fekk Gambien si di seetaan dara mu eeg saaga leen kenn du si dara Fadja ku réew la. Mhm. Fadja bàyyi yarade ko yaa nit ñaa jógee Gambia bàyyi xamadi. waaye sa ñam bi léegi tey mu deelu fu mu jógee. déedéet dafa yebaate parce que keroog noonu la def ñu live ñëpp di seetaan mu naan two hundred doomi lañ you know fajaan dafa yebaate suma diggantee ya, loolu laa jotee moom di dafa yebaate yow kii wér amul amul respect fajaan dafa réew yow naka nga si live fekk fa nit ñi leen lan lañ def man du ma dee du wax kenn naka wala yal de dansoo mu ngi ni man dansoo du ma ko jay parce que yaa ngi dégg waaye fàjjaaj da nga mun a tooñ bàyyil tooñ yàlla bugul tooñ nit mun ngaa wax sa te doo tooñ nit <laughs> waaye da nga mun a ah hey ki, hey ki, dofu dara ba aw sin bàyyi ki kii wérul kii dofu dara jotu ko moom mu ngi doon saaga yow nit ku wér dina wax ne xaaf ah, yi yëpp doomi haram la nit ku wér dina wax loolu nga nga jàkkaaroo 300 people nga ne ko de 300 waaw ñu doomi haram lañ te yow fàjjaañ yow fàjjaañ bul tax nit ñi wax fàjjaañ ñi ah, seen yaay ya, dañ seen seen ya, papa yi ah, you know yow ñëpp bañul lañ jóge nga bëgg a taxaw di xas nit ñi yow da nga réew trop man musuma ama yow ben problème waaye eeg di saaga nit ñi yow yow loolu foo ko wér moom ma si jaaxal ah? ya, fajal dafa réew trop dafa xamadi deewu de daf dee jaay sañ kii loolu la lekk bi di réew kii fu mu tëdd oh, mu tooñ kay man jotewu ma fajal dara naam dan soo Fat Diagne amut yar man Fat Diagne fan laa xamee amut yar amul respect Faat Jaañ dafa def boppam yelewaankat moom fas yéene wut liggéey ñaam ah. because problème yi seena bu mbay bi Faat Jaañ lu mu waxu daf ko faate mm-hmm. Faat Njaay dem kër bu mbay naan dama ñëw suma kola suma yaram beeg dama bugg a mel ni yow si laa pare si moom bem sa duul ak fen mooy liggéeyam xëy yut gontu wut yelewaan rek xam naa si yëpp xam naa yëpp yelewaan mooy li gis nga Jaañ da ko raw ba pare juddu bu rafet ndey ak bàyyi ful ak fayda borom mm-hmm. bul topp Faat Jaañ bu ko tontu di wàccee sa bopp Faat Jaañ da ko raw yaag moom dafa mel ni diggante suuf ak asamaan doo moromam moom du yow te àdduna du mu sane fa jaay mel ni yow. su ma ko bàyyee mu jàllal nii la dina ma ko defati. foog ma génn mais waaye waaye waaye sista. sista gis nga nit ñi ah. nit ñaa ngay ñàkk ba bugg a dee. nit ñi tagee ñàkk diñ si boppam am personnalité. yaa ngi dégg du tooñ kenn du saaga kenn. na faa jaay mbaay barki démb laa ko fekk si lay fi soko. muy saagante ñooñu ñooñu di xas gambien si te benn gambien égo faa jaay dafa fañ. faa jaay dafa fañ sista déglu ma rek xanaa xamuloo déglu ma rek déglu ma gis nga bari na sénégal yoo xamante ñu ngi saaga gambien si because of Fatou Jagne moo ñu yab mhm. Fatou Jagne yëpp Fatou Jagne because of Fatou Jagne foo ko dugaloo mu dugg foo ko dugaloo Fatou Jagne mu ngi ñaaw ni bukki kanamam baa ngi mel ni baabul Fatou Jagne balaa mu may balaa mu may neex tànkam ni suma mbootaat bu ma yar ni si kër bi dansu dansu dansu xalal Fatou Jagne ñu ko waxal ni rek ah doy na yow bàyyi kii di ko yar mu ngee ñëw ñëpp di ko gis ko moom dafay yarade ko di saaga nit ñi di dof dof si kaw nit ñi di nit ñi defal ko dara dafay yabaate si Europe bi nañ ko sootaan bi dama am man ama faaja ñu foofu yow bay waxaa ñi naan doomi xara te yow yaay bu mag bi ak génn waaw mais leen ma damaa génn nii Pape Diagne dafa amul fer Pape Diagne amul fu mu dem di laajte leen ko moom kan mooy mbootaam si kan la mooy dem Fatou Diagne amul fu dem. li fi Pereira la sant de Fatou Diagne Pereira la sant Pereira la sant Pereira. si liggéeykaay waaw yow Sadio. mais ma rek Pereira la sant na bàyyi dox dox bi si kaw li waaw moo nekk ne. yara moom lu moom lu wax si voice am mi mu ne moom dafa advice Danzo. Mhm. xaleel soo ko advice. waaw kool ko moom am na nomba Danzo am na ko TikTok. am na ko Facebook am na ko fu nekk na ko call advice ko waaye du bugg a jël Danzo di ko bulli si biir nit ñi Danzo tam du ko bàyyee boppam. ñun ñëpp dañ dee war Danzo ne ko bàyyil bàyyil bàyyil bàyyil bàyyil waaye moom dafa ñëw bëgg a bulli Danzo ñun tam duñ ko nangu Danzo tey kenn waxu ko ne ko bàyyil parce que suñ yoon nekku si doo mën a jotee ni yow jotewuloo nit ki kii dafa wax waxam nit mun ngaa saaga ndey su la neexee bor bu set fii kan ku fi saagu dey dafa am waaye yow da war a dugal mm-hmm. yow toog di ko xas si biir nit ñi si àll bi yëpp si teg seen di jaay sañ fii comme neex sañ bi sa rakasa même si bi la sa soo bëggee mu jox la cër donc koy oo du ñëw nga ko kaay li ak li ak li ak li ngay def te di ah. dama bëgg nga bàyyi ko. Eh, Fadiane ok oh, déglu leen ma Fadiane déglu ma Fadiane asalaamaaleykum su defee lu rong kenn du àndaamoo dañoo reyantee moom si suuf ba bëgg a dee. waaye nga toog ñu ba pare jël jël vidéo jàmbur. teg ko di ko benn bennal di ko xas su fekkoon ne de su dee dégg nga ko wax sa yow kooku win na la parce que lu tax nga war a teg kooku di ko benn bennal di ko xas di jaay seen di jaay ñeme. yow su dee followers tan ko wala ko su dee saaga tan ko wala yow yow jigéen nga yow ñaan nga yàlla yow ma am Danso waaw waaw dégg nga Fadiagne am nañu ko gën a réew di fii kum neex nga wax lu la neex waaye nga bàyyi tooñ bul tooñ nit na ba Fadiagne bàyyi maa njëkk a Danso damaa wax pare ma wàcca na Fadiagne bàyyi tooñ bi mu nekkee ba pare dem si Sénégal man maay sàmm kii maa a eeg a eeg a mujjee am non bul wari ma maa noo taxale bàyyi ma ma de kadi waxuma la de yow waxal kadi waxal waaw yéen nag maa udde xaa ba ñoo taal live waaw loolu laa bëggoon maa yow ñu jàkkaaroo yow ñu naa suñ pello mooy daa xam sax ma ma benn kàddu <laughs> rek Danso dafa yebaate daal naa jege Danso bye bye bye bye man maa ngi waaja ok bisi bisi daal Danso waay waaw Danso da nga am ñaani waajur fajjaay mhm. na amul boobu noonu mhm. yaa ma dégg maa lay dégg ñaanal la sa bàyyi ñaanal la li nga defal sa waajur